ñun waa kër Serigne Saliou waaw kon de ñu ngi euh, gërëm di sant euh, conférencier bi di monsieur Lamine Touré Lamine nag daa mel ni man xàmmee naa ko bu baax xam naa ne kan waaw ah, waaw kay miin naa ko dama xaw a fàtte nag waaw kon. Euh, ñu ngi koy sant ci thème bi nga xam ne moom la développé ndaxte tem bi mu développé dafa nekk thème boo xam ne bii dafa nekk li ñuy wax thème d'actualité maanaam dafa nekk thème loo xam ne euh, xisa la boo xam ne wa bu ñu war di waxtaanee bët bu set la ndaxte lu bokk ci éducation moom dafa nekk ci deret dafa nekk ci deret li ma mën a wax ndaxte ki ngay boo li ngay li ngay jàngal nit ki day dugg ci deretam. loolu nag euh, lii tax ma wax ko moo di damaa am chance wu man sama bopp def daara yàgguma ci maanaam man mille neuf diggante soixante soixante deux soixante diggante mille neuf cent soixante quatre laa ko def euh, ñu daal ma fay jële yóbbu ci école ma jàngi yàlla def it wax dëgg yàlla ma li ma jàng ma ma ma ma li ngeen di wax nii branche yëpp ma franchir ko def naa école primaire jóge fa def lycée maanaam euh, suivre ay branche technique di jàng physique chimie jóge fa def économie université ba mu jeex am fa maîtrise am licence génn fa am brevet école nationale d'administration bu magistrature euh, bu Sénégal kon loolu loolu mën nañ ne bu fekkee ne kuy jàng ci sur ci ci ci ci ci ci cursus def nga li nga war a def ci ci njàng yàlla dimbale wéet ma daal di liggéey ndaxte dama toujours damay wax euh, ci déontologie maanaam boo bëggee xam nit ki ci jëkkoom séqal ak moom xaalis ci ngay xame ku yàkkamti ci ngay xamee ku nay ci ngay xamee ku tabe ci ngay xamee ku ah, ku ku dul wax dëgg ci ngay xamee kuy wax dëgg waaye lii nga xam ne moom mooy thème bi nga xam ne moom la sëñ Lamine développé man dama koy jëlee fu sori bu leen fàtte na que dañoo am ñetti téeméeri at yoo xam ne yi tubaab bi def ñoo jàpp jaam trois cents ans trois siècles ñu ñëw di jàpp si fii di yóbbu Amérique ah Europe Amérique muy le euh, euh, commerce triangulaire ñu joge ca 1848 ñu ne abolir nañ esclavage dindi nañ esclavage njàng moomu daal di dugg 1880 82 Jules Ferry moom ba mu ñëwee ba dugal école def ne kon ah nañ fexe ba comme ni ngaan wax diine moom nañ ko ci dindi. mu yàlla ñu daal di dugal kon laïcité maanaam nit ki lu lu lu mën a mel moom am na droit mu ñu ñu ñu jàng si waaye bu bu bu kenn seet nag moom moom lu mu gëm waaw sëñ bi nag moom yaakaar naa boo doon seen seen défense waaw kon loola loolee nag di dox ba tey parce que loolu dafa dafa am doole. def na silus tam ci côté par benn benn ndaxte bu fekkoon ne dafa nekk loo xam ne lii phénomène de masse la ba nga xam ne mën nañoo fexe ba teggi tey euh, curriculo curricula curricula yi maanaam programme yi nga xam ne moom la ñu def parce que dañu développement bi dafa dafa am solo lool fi ñu toll tey suñu cosaan xamatuñ ko ku jàng man fàtte nga sa cosaan ci ci ci tubaab ku jàng xamatoo dara. ci ci ci dara loo xam ne lii ci sa histoire la ndaxte jàngaluñ ko tey boo boo boo bu la doon wax ci mbiram sëñ Touba ab chapitre bu ndaw lay doon buñ dee wax ci rasulullah ab chapitre bu ndaw lay doon jàngale nag histoire ak géographie ak jàngal la mathématique maanaam jàngale lépp loo xam ne nag ñoom loo xam ne ñoom lu leen soxal la. comme ni nga ko waxee léegi da ngay xam ay Descartes xam euh, euh, La Fontaine xam ñoom ay Boileau xam ñoom Racine xam donc ñooñu ñëpp day dem ba yow loolooy ub sa bopp loola nag feek kon programme yi ci foofu laa bëgg a intervenir foog programme yi mënuñu koo changer ci dëkk bi ci réew nit kañ bëgg a am moom duñ ko am programme yi laa wax de feek mënuñu koo changer nit kañ bëgg a am duñu ko am ndaxte programme sëriñ bi mooy programme loolu sëñ Saliou da koo wane man damay jël rek sama côté économique bi nga xam ne moom laa xam mais fi ñu toll man dem ci ay tool moo ma gën a dellu ci bureau def naa 36 ans ci administration à la traite soxlawaatuma dem ci bureau lu ñuy xam ci bureau xam naa ko dem fi ñu toll ay tool laay liggéent ndax damaa gis ne. damaa jël exemple yooyu nga jël exemple bi nga jël léegi ci ci ci ci ci euh, pays asi du sud-est muy dëkk yooyu ngay dégg ñuy ñu du ko tuddee ay kore ay ay ay ay ay ñu du maanaam pays yi nga xam ne moom la ñu tuddee dragon yi rek juróomi juróomi dëkk yi yooya dëkk dañoo jàng ci seen làkk jàng seen cosaan boole kook seen ngëm-ngëm looloo tax fi ñu toll ñu toll fa tey tey yow boo amee 3 millions ci sa PIB par par habitant ñoom ñu am 50 millions xoola xoola xoola boobu différence loolu nag bu ma desuwaatee ci sëñ Saaliwu sëñ Saaliwu dañoo jox exemple boo xam ne bii waxuma la kenn ci ñun de état bi ci boppam moo ci war bismillahi rahmani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah euh, nuy sant Cheikh Mouhamadou Lamine Touré mi nga xam ni moo doon def conférence bi te di koo xam ni seen euh, Ablaye sàll di koo xam ne moom mi ngi juddoo ci dëkk bi juddoo ci biir réew mi euh, jàng alxuraan jàng diine juddoo ci biir kër Serigne Saliou mook sa Serigne ñoo bokk ndey ndeyam soxna Gaye Touré ak soxna Modou Diakhaté ñoo bokk benn ndey yow kër Serigne Saliou kër Serigne Moussa nga ko xamee ah waaw ah, ah, kër Moussa nga ko xam ne sëñ sëñ soxna Gaye Touré mooy waajuram soxna Mati Jaxate mooy waajuram sëñ Moustapha Saliou ñoom ñaar ñoo bokk ndey mu juddoo ci biir kër gi jànge fi def jàngo alxuraan la fi jànge ak diineem ci farluy boppam ak gëstuy boppam tey jii anglais mu ne si wax lu ko ump français mu ne si wax mu ne si lu ko ump waaw arab arab moom noo ko jëlele arab ci la ci la ci la ci la ci la ci la jàng kon kooku mooy ki nga xam ne moo doon def sama waajur lañ ko tudde suñu wala bi job dagg na nee na ma bàyyam nee na ko moo ko uuf tudde ko boppam moo ko uuf tudde ko boppam kon kooku génn dara daraam génnul yoon wi ba noppi te mu mel nii mu mel kon loolu day wane ni am na ay exemple ci yoo xamante ni bii mën na man man ma mën naa sottal li nga xam ne mooy problème bi ñu doon wax léegi ndax moom mii kenn la ci misaal la ci diina la jàng alxuraan la jàng ba noppi te lu ñuy xam-xam na ko école yi xoolal gis nga gone boo ko joxee ci daara mu jàngal xaan ba wattu nga dem dugal ko te école ba ñam fa fekk du doon seen morom am naa ci ay gone yu gone gone am naa ci samay doom yi rek yoo xam ni ak samay doom yi bokk yoo xam ni fi mu ne nii jàng nañ ba wattu ci daara ji te fi mu am nañ seen licence te wee bàyyeeguñ jàng te am nañ licence te ñañu bokk doon di jàng amaguñuy licence gis nga alxuraan mooy li nga xam ne dënn bu mu jiitu barke day barkeel lépp lu mu jàng te xam nga loolu sax ñoom dafa mel ne dañ xamut waaye bu ñu ko xamoon sax danañ se daara yi gone yi di njëkkee jàng alxuraan soog a dem ci école yi ndax gone soo ko njëkkee ci école su demut day tardé ndax danga juróom-benn at yi mu war a jàng alxuraan yooyu lay nekk ci ecole bi bu ko defee yàlla dogal surtout mu daal di baax bu baaxee na kooku daara moom soxlaatu ko te it moo këru la doon jàng du liggéey fenn taxawaar lay liggéey su fekkente ne nag ci daara nga ko njëkkee bu mu am juróom-benn at nga jox ko ci daara fukki at mën na cee mokkal alxuraan nga dem dugal ko ci école ba ñam fa fekk du doon seen morom kon gone yi jugal ko ci daara moo gën di bénéfice mu njëkkee école loolu itam parents yi nañ ko xam bari na ci loo xam it noo ko teg suñu bopp kenn tëgunu ko ndax état bi fersuwul kenn nun nooy jël suñu doom di ko dugal ci école yi tey ay jullit war a jàngal suñu doom yi diina war a jàngal suñu doom yi alquran defunu ko ngir eh, ngir ngir koomu adduna mi ci nekk te kom mi nekkul ci njàng mi koom mi wërsëg la wu yàlla joxe sëñ bi wax na ko sànq ñi fi ëpp alal ba jamono yi diinu toll ñi fi ëpp alal sëñ Ousmane Kébé mi rahmatullahi alayhi di rakk eh, alaaji jiri kebe alaaji eh, njuge kebe nga xam ni teraanga bu ne am na ko lu ne def na ko fii am na bis ma di ko bind leetar bindi lu ko ci tubaab ba mu dem demee ndaw dama boobu man damaa defoon ni tubaab la jàng da koo delloo ndaw la ne ko ne xanaa xamul sëñ sëñ bi xamul ni man ci daara laa génne man alxuraan laa jàng jàngu jànguma tubaab ak ñu mel na moom ñu dul jeex ñu bari ñoo xamante ni koo ci lim tey ci daara lay jiite nun nooy tooñ suñ bopp kenn tooñu nu état bi tooñu nu tubaab yi bi ñu nu tubaab bi fekkul kenn ci biir këram nangu doomam ji dugal ko ci école bii yow yaa fab sa doom de dugal ko ci école ba ngir di ca damu koomu àddina te koom ma nekku ci ci loxoy suñu borom la nekk nanu xam suñu bopp xam ni jullit lanu nu fab suñu doom yi doxee ko ci daara yi gone ak juróom benni at boo ko doxee ci daara ñetti at man na cee moo ko la jàngale kat yaa ngi nii man jàngal naa gone goo xam ne ñetti at képp laa ko jàngal mu wot ñetti at ma nga Afrique du Sud ñu ngi am teraangaam di def lu ko neex ñetti at tubaab bi njëkkante na def maanaam maanaam bëgg gone ba amee juróom-benn at ñu dugal ko ci école ba loolu lañ njëkkanteeg daara yi la na ni jëriñul dara waaye bu njëkkanteeg daara yi ñu jox ko gone gi ba gone gi amee juróom fukki at ak ñett fukki at ak ñeent mu dàq ko googa moom daara ko moom bëggoon am na ko ëpp ci bu dee téeméer ñi ëpp ci ñi ñuy dugal ci juróom-benn at bu téeméer juróom-benn fukki yi dañuy dellu gannaaw duñu egg ñeent fukki wala fanweer wala ñaar fukki sax ñoo egg kon loolu nun noo ko teg sunu bopp nan foofu gone yi dugal leen ci daara yi ñu jàng alquran boo jàngee alquran ba noppi jàng diineem nga dugal ko ca école ba su fa arrivé baax na su arrivé wul it moom xam ne diineem ba noppi dana dem kon lu nu dal noo ko teg suñu bopp kenn tegunu ko du tubaab bi du du état bi du kenn nan dugal suñu bopp doom yi ci daara yi ñu jàng alquran nun ñi alquran dong leen jàng ñëwunu kenn ci alquran dong la jàng ñi alquran lañ jàng ba ab gëstu ak seen man-man moo tax ñu dugg ci système bi di ci liggéey alquran lañ jàng kon jàng alquran te ko ta tardé day dax dem ca kanam kenn néewlu kenn kon ku yaakaar ni boo dugal sa doom ji ci école bi du du du du tedd yow yaay tooñ sa bopp kenn tooñu la nan dugal gone yi ci école ci daara yi ñu jàngal ko ñetti at wattu nga dugal ko ci ci bëggee dugal bu demee day arrivé cent pour cent la la ci bëggoon lépp da ko ci am du du dellu gannaaw du redoublé gone ko wattu alxan nga dugal ko ci école du redoublé du dellu gannaaw kon nag loolu rek lañ ci bëggoon wax noonu seetaan suñu bopp mun foofu lépp di ko sëf état bi mun ko sëf tubaab bi mun ko sëf kenn nan seetaat suñu bopp. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaw waaw xam naa sant gi itam. ni sant rek ñi nga xam ne ñoo jàpp ci liggéey bi. di sant Cheikh Mourtada mi nga xam ne moo jàpp moo moo jiite liggéey bi te jàpp ci nag. di sant jëmm ji nga xam ne moo doon wax muy Abdoulaye sëñ sëñ Mor Sall nga xam ni moo yore commune nu mu tudd. commission de finance commission de finance ci jàkka ji moo ko yor. moo sëñ kii Ndiaye mii. Ah, sëñ sëñ Modou Ndiaye mi mu dendal ak ñu mel ne ne baag Ablaye Ndiaye kon ñoo ngi leen di sant leen sant wax di sant seen Jaafar say liggéey na mi ngi liggéey liggéey bu am solo ci wàllu liggéey bii ñu ne di sant sëñ Ousmane Kébé mi nga xam ne moo fi bàyyi koo ba démb te di ko ñaanal sunu boroom eh, yërëm ko te jéggal ko fa mu jëm egg gënal ko fii mu génne ndax liggéey bii moo ko yoroon moom rekk moo ko yoroon ak eh, eh, góor gi Touré ak njabootam ñoo ñi nga xam ne ñoo ko mas naka jekk ñoo mas a teraanga yi ñu andi ci jàkka ji ba sëñ Ousmane Kebe ñëw fekk ko fi ñoom ñaar ñoo ko yoroon da diggante daaw ak ren ku ci duggaat nga ci dugg waaye ñoom ñaar ñi ñoo mas di yor teraanga yi jàkka ji ñoom ñaar ñëpp tey jiitu nañ seenu njaboot fi des yal na yeen yàlla yërëm te te te te seen njaboot gi mu tegal mu teg ci loxoom ba lañ ci bëgg ñu am ko ci bëgg ñu ngi sant ñëpp rek bu ñu limee dañuy dul eggal waaye ñu ngi sant ñi nga xam ne nga jàpp nañ ah di rafetlu bu baax jataay bi di sant bu baax sëriñ Lamine ci waxtaanu am solo bi di nuyu sëñ Abdoulaye Sall ak sëriñ Habibou euh, di siyaar bu baax sëñ Tall sëñ Madiama ak mbooleem ñi nga xam ni jaar naa ci ay kàddu day mel ni nee nañ ma ma tënk jataay bi kon mbokk yi fi teew ak ñu ñuy seetaan li ñuy tënk jataay bi mooy sëriñ Lamine Touré dafa ñëwoon tey di waxtaan ak ñun ci système éducatif bu senegal lay taayee ko nag loo xam ni dañoo tiitaloon ñun ñëpp ndax daf ñu wax ni tubaab yi dañoo jox système boo xamante ne dañ cee génne woon yàlla muy système boo xam daa am lu mu manqué woon waaye nee na loolu nga xam ne moom la ñu jox te muy lu manqué nee na ñun bi ñu ko jëlee dañ cee wàññiwaat leneen nga xam ni manqué te giñ ci giñ ci fekk sax dañoo yokk manqué te waaye yokkuñu ko. loolu nag bi mu ko gaaralee gaaral jafe-jafe yi ci am daf ñoo tiitalal mais li dal suñ xel ñun ñëpp bi muy jeexal kàddoom dañuy lii malgré li muy am lépp am na solution boo xam ni moo nekk ci suñ wet te mooy li ñu sëriñ bi jox kon sëriñ lemin ñi ngi lay sant bu baax bi nga ñu euh, diagnostiqué bi nga tasxiisee masaakil yi bañ tiit da ñoo jox ay xulóol mooy da ñoo jox ay solution ci lii nga xam ni moo fi nekk waaye solution yi da ko wax noonu waaye ay jëmm dañoo ñëw wane ko sëriñ Habib bu muy toogoon fii ci yarub sëriñ boobu ngay wax ci la nekk waaye suñ mbokk mi suñu Abdoulaye Sall ci ñin jànge ci tubaab bi la waaye sëriñ bi moo ko cuub ba tey bu toogee fii kenn du ko xàmmee ñi jaar jaar ci daara ji loolu mooy li sëriñ bi def njariñ li mu am du guddal sëñ bi yaa ngi wax système yi nga xamante ni éducation romb na ko muy muy mbooleem changement yi fi jaar 71 81 91 2002 ba 92 2012 euh, bi ci bi ci bi ci gën a xorom rek mooy bu 2002 bi nga xamante ni suñu góor gi moom yàlla da ko defoon xel mi moom gudd lool bi mu ñëwee tubaab bi dañ leen wax ni leen seen doom yi jàngalu leen leen da ngeen war a jàngal seen doom yi dañoo war a def école pour ñu mën leen a ñu am problème ci taux brut scolaire mu wàcc lool biñ jàngatee ñu xam ni école bi daa amul diine moo tax ñu mu mënul dem foofu ñu dugal éducation religieuse mais kii wax na ko léegi éducation religieuse boo xamante ni booy jàngale yow yow jàngalekat arab bi boo duggee ne ne xale bu jigéen du muurul berul sa mbokkum euh, élève bu góor bi soo génnee euh, bu dee ñun ñi nga xam ne ci système bi lañ nekk da ngay génn classe jëm ci classe nga rombante ak ay élèves yoo xam te classe bi nga génne la ñuy dem di àbb lan muuraay muuraay la ñuy àbb seen morom yi nekk foofu kon léegi muurutul ngir yàlla waaye yow yow mi jàngale diine la ñuy muurul nga xam te ne kii jàngale tubaab moom bu tukkee nu leen neex la ñuy mel loolu mooy li fi am li ñu nar a sawee nag mooy li nga wax nii nañ delluwaat ci jàngaleem sëriñ bi lu ñuy def tamit ñu bàyyi ko ci xel yaakaar naa bu ñu ko defee dinañ